mbokk yi nuyu leen Ndiago Euro ak àdduna eh àdduna dóor na Ndiago Euro eh, dóor àdduna ba xañ na ci Ndiago Euro eh Ndiago Euro dóor léegi Ndiago Euro àdduna àdduna su tur bi diis na de àdduna menn mi àdduna Ndiago Euro Ndiago Euro moo wan ginnaaw àddina la nu jàkkaar lool àdduna moom ëpp naa daanu moom. <laughs> àdduna bi ëpp na mu daanu mais ñaga Europe yi dafa weex ñaari ñool lanu ñaga euro ak àdduna waaw ñaari xale yaa ngi noonu àdduna daw na jël ko àdduna ak Aldina jàpp na eh caxabal na ko na ko eh nag àdduna daanu na. daanu na. àdduna daanu na. Ndiago Euro daan na àdduna <laughs> eh xale bu Cambérène baa ngoog. déggal moo daan na nga ko bébé bismillah. bii mooy premier combat daan na ko jël lu ah mais yow rakku mbër la. ko doon def da ko doon plaqué mu tuur ko wala. da ko doon plaqué mu tuur ko. da ko wéy rek rotation rek mu jeex. mu jeex làmb yi noonu. Ndiago daanu na. Tonnerre yi noonu. ñoo ngi defaat affaire yi. Tonnerre nuyu naa. bëgg naa la. loolu maa lay bëgg maa lay bëgg. tey naka nga ñëwee ak yeneen làmb na mais say supporter nam la tey naka nga ñëwee. bëre daan ñibbi. nga gisaat beneen bu bees. bëree daan ñibbi. lan daan di day xeex wala bëre. lu mu ah. li ngay waaj a def ni tous. waaw naa ne répété dégg naa répété nga ci lu neex. maay borom. maa ngi andil fan a yóbbu. combat la comme que yeneen combat yi rek waaw man euh, boo xoolee gaañoo ma ci dara nag. boo boo xoolee. gaañoo ma ci dara. Ah. waaw. lu tax gaañoo. après dinaa la ko wax. waaw. ni da xaw a oyofal combat bi. non non. non non oyofalu ma ah. dama ko jox teer comme combat yëpp. comme booy bi weex na de booy bi weex na de. loolu laa bëgg man ku weex laa bëgg ah. waaw. leneen nag kay xanaa di nga bàyyi bi nga bëri ak xel doole bi. waaw Youssou Ndour a woy loolu. Youssou Ndour a woy. day day tonné lu mu la andi. bëri daal ñibbi. incha allah ci la. yaay kan. trompeur de. trompeur de. koy duggoo ci Boy Diop. ah. champion la njëkk ma ci làmb ma doon espoir def ay preuve jaar ci kawam jàll ak incha allah tout arbitre naa ko wane quoi. léegi desul lu mu laaj. waaw teg ak tey arbitre soufflé ma gis lu leer ko may dara te ñaanuma ko dara la may ma jël ci kattanu sunu borom. li nga xeex. damay xeex damay bëre. kon ci kanam waaw. Aliou. non non sax. ah non non sax. koy bëreel. ah koy bëreel. Karba tey naka la ñëwee. waaw comme ni ma daan ñëwee rek comme ni ma daan ñëwee rek incha allah ñaan ndam rek. dina gaaw wala day yéeg. lépp mën na ci am rek sans départ. dina xeex. mën nekk lépp mën naa am. sans départ kon ci ñu ngi lay di leen ziar bu baax a baax a baax. waaw. tey nga andi sa booy. Hercule nga indi rek comme ñu indee yeneen mbër yi rek. mu waaj ko ñu préparé ko nekk si ginnaaw. ñu waaj ko mu préparé ko ñu nekk si ginnaam comme yeneen combat yi duñ koy préparé di koy ñaanal nag yàlla may ko ndam quoi. dafa mel ni yaa ngi waaj MMA. waaw ñu ngi sant yàlla ñu ngi si koom. mooy bi nga jël wax na de. waaw amul benn problème lamb la rek ak sport la rek. nee na a amul benn problème yàgg naa dégg loolu. te nit du ko def. te mun na am nag. parce que day bëri na solo. bàyyi ma ko xel mun na am. mais yaa ngi waaj. waaw sant bu baax a baax. di waaj waaw ok ñoo far. looy wax yow. bon lu may wax dem jëli ñu gisee. Ah. waaw ma jëli ñëwaat ñu gisee waaw. signal ak Bébé Ama. signal moo nekk ci Bébé Ama. mbokk yi administré na combat ba. signal ak Bébé As. signal moo ngeen moo ngeen moo ngeen moo ngeen ruusu. signal dina war a bari bari jam jam moom. ndeysaan da ngay Signal ak Bébé Aas Signal moo ngi moo ngi lu weex li Bébé Aas nga moo ngi mu ruus li ndeysaan Signal ak Bébé Aas ndeysaan ba tey Signal Bébé Aas combat bi yàgg na waaw ndeysaan waaye dee fàttali si ñeel ak dafa faas ak si biir kër gi ba léegi jam ñaar jën day rëpp na lu am daan na laaj dara bu laajee xeex damay xeex ba bool boole ñibbi bu déggoo ma bu laajee xeex damay xeex ba ñoom ñu waaj teewin bi. Fallou Ndiaye xanaa dañu kontaan si moom xam nga di ko ñaanal quoi 15 ans mi mu dem ba nekk ay 50 ans mu koy féete doole séeb waaw di sant ñëpp waaw. 22 maire tey waaw ah, suñu yaay nañ dund. waaw maire yëpp ñu ngi leen di ñaanal wax ko si tukurool yow. wax ko waaw yaa koy wax nee na mi ne mais nag mais dundal yaa yëpp masa coono. barki Seydina Mohamed rawatina sama yaay. man da koy jàppale moom heure bi maa ngi combat yaay yaay dundal. Tonnerre nuyu doom ndey. ci si la ne woon rek. waaw ci lan nga maa rek nekk sama ruq rek nekk sama entraînement. waaw. xam nga ne tey signature moo la fi waaw tey première jàkkaarloo waaw seen na daa tàmm daaj paquet nga dem du mën a daam seen dafa tàmm daaj nga dugg ci moom nee naa woo bàyyi ngaa daaj doo doo daaj nee naa woo jour combat doo niil doo daan combat bi du ci daaj paquet bàyyi naa daaj sax beneen combat sax du daaj tonnerre nak tonnerre bu ñu waxtaanee tonnerre dafa mel da nga xaw a wàcc parce que tonnerre Papa Sow tonnerre keneen ak keneen nga wàcc ba ci daam la moo dugal ci daam parce que comme mag ñi nangul ñu bëre yow nga bëre ndaw ñi rek dañ nga jëlaat ndaw ñi wane waat sa bopp loolu rek moo tax ma jël daam seen mais dara te daam seen tamit dama prouvé war naa bëre ak moom. mais soo bëree ndaw doo bëri ndaw moo xamante ne dañ ciy jaar jàll nga dem xool fi mu gën a méttee nga tànn foofu. waaw parce que foofu la ñuy xamee jàmbaar jàmbaar da ngay xool fu méttee nga jaar fa mais doo xool fu nooy nepp nga jaar fa man sama sama lépp a métti waaw. mais daam seen bu ñu xool moo la xaw a sut est ce que doo la xaw a handicapé tuuti. Elton moo ma sut boo ma bëree Elton moo ma sut boo ma bëree Guinée Junior moo ma sut loolu si la foofu lay daaxee sax. foofu lay daaxee foofu lay gën a neexee. est ce nañoo gis tonnerre bañ daan gis si xeex tonnerre bañ daan gis si bëre tonnerre bañ daan gis si fomm est ce que mën nañu koo gis si tonnerre bi. dinañ gis incha allah lu ko raw bu ko raw bi ñu gis yëpp dinañ gisaat beneen tonnerre bees tax. lan ngay mën a wax fan sa tonnerre yi. ah nañu ñaanal waa axlu làmb yëpp muy promoteur yi muy journaliste yi muy mbëri yàlla may leen jàmm rek. may tamit ah, bépp amateur bi ñëw di seetaan sa mbër rek nga ñëw si yar ak teggin di wax ni. non violence la mbër wax kon nañ suñu supporters jàppale waaw di ñaan yàlla yàlla ma ndam si kaw daam seen jël bu rëy rëy rëy. kontaan naa. maa la gën a kontaan jërëjëf. Nokia nuyu naa. waaw fay naa lu baax a baax. ci loone sant yàlla xam muñ. daa mel ni face to face moo la fi andi. waaw noonu la demee nag effectivement face to face fi andi waaw. sa diggante ak Bécaye. waaw loolu la wax de. nga génn parcelle duggaat parcelle lu tax lool lamb la rek. maa ngi fi pour ñëpp lamb la rek xëy na adversaire bi daa nekkoon côté boobu waaw. sa combat bi ñu ci bëri xàmmeewuñu la est-ce que Nokia ba ñoon xamoon mën nañ koo gisaat ci bés waa waaw sant la rek lamb la rek man maa ngi si lamb saa bu ma jóge ànd ak ñi ma war a àndal ku ci mel ni Malick mii saa bu ñu waajee li ñu waajee li ci des dañ koy bàyyi si loxo yàlla quoi waaw lamb la rek comme yeneen lamb yu ko. Bécaye wax na de. Nokia ngay waxal de. dama ne Bécaye wax na de. instant yi man tolluwuma ci wax dama war a jëf gars yi gis te ci kàttanu yàlla nañ xam dara incha allah le 24 juillet. xam nga bor bi nga amee say supporters. dégguma xam nga bor bi nga amee say support xam naa ko bu baax a baax instant bu ma tëddee sax du mën na lew ba tax loolu man dama din ndaanaan barke alxuraan karim gars yi du ma seen morom mais xëy na ni muy demee la ak yàkkamti yaa ma gën a xam mais ci kàttanu yàlla le 24 dinañu gis beneen nu koy incha allah looy wax di ko ñaanal jàmm rek bu suur ba incha allah loolu kese laa koy wax. la ngay wax Bawol Bawol. waaw di leen wax ñoom yëpp ñu waaj ak seen doomu day am na combat muy Nokia maa leen di woo sama combat bi amaat naa combat man ak Bégaay le 24 juillet quoi di ci woo bool bool yëpp di woo sama sama waa secteur waa Kër Ndiaye Lo te ngeej bàyyi ma fenn waa extérieur parce que man maay mberu gaay leen wax ñu waaj le 24 incha allah. jaajëf xale ci digg géew bi combat bi dox ci petit l'enfant ak Hercule Hercule mbokk yi moo féete à gauche petit moo bi. Petit l'enfant moo ngi moo ngi mu lu ñuul li Hercule door na Petit l'enfant léegi. Hercule ba waaye door na ko door na ko door na ko ba ngay daan Hercule door na ko mu kaawoo Hercule door na ko mu kaawoo Hercule daan na ko da koo door Petit l'enfant coup ba mu jël baaxul Petit l'enfant Hercule. maa nuyu naa. fay naa sant yàlla. moom dafa mel ni jàmm ngay woote. waaw jàmm rek jàmm la ñuy woote bool bool yaaye. waaw. tey tonnerre naka la ñëwee. ah tonnerre ah yëpp nañu fi fulaat fayda rek. waaw taw entraînement nañu ko li mu war. kon maanaam na ñëw teelu jàpp gan gi daan man laa gis. mais mu bëree xale la ah, ki mu bëree la tonnerre tamit xale la. tonnerre maanaam tolo tolof ñàkk waaye xale la xale bu ndaw la. waaw tey jii nag daa war a wane moom daa war a wane moom li mu doon. moom da ko war a wane. tey ñu gis jàkkaarloo face to face moo la sa diggante ak Alioune Seye Junior. waaw sama diggante ak Alioune Seye Junior waaw moom laa xaar ni saa yi ñu woo ñu ñu wax li ñuy wax ñu dem ñibbi ba jour ba ma jàpp ko daan ko lool laa ci am. mais da nga nekk ci forme te làmb ji ñëw. waaw man xale la man damaa war a nekk si forme chaque jour tout le temps dama war a nekk ci forme ndax su ma jógee bawol bawol jóg kon maanaam lu ma def rek fulla si war a def ànd seeg waa bawol bawol yëpp nag ànd sama nijaay sama nijaay jéey. ak Ahmed Dieye bi nga xamante ne nii moom mooy maire Touba Toul maa ngi ci ànd ak moom di ko wax ne man sama doom laa na ma jàppale te yàlla tax man bawal bawal laa am man bawal laa am waaw. mais nag ah, Alioune Seye dafa mer ndax ca la mu jugee bugg caa dellu si waat nga ñëw dugg ci moom est que dafa euh, non boo doonee mag da ngay xaar. Alioune Seye du mag. non mag la Alioune bi muy bëree boobu xalaatuma bëree. wallaay xasima boobu sax ñëw ma stade ay stade yi ñëwuma ko. mais loolu risque nga fekk mag nga dugg ci moom mu daan la. waa maanaam kon day ñëw joxe day ñëw joxe cër bi rek cër bi mu moom ma jàpp ko daan ko ndànk. yaa jàpp na mag la mais du mag. mag la de man mag laa jàpp. moo kankan est man lu may juum. non man du ma. Alioune Seydou Mag de. Alioune ah, moom a jiitu. loo koy wax. li ma koy bariwul. na ñëw ñu signature bu bis ma jàpp ko daan ko kese. loolu la am ci combat bi. na entraîné wala mu bañ a entraîné. entraîné ak ñàkk a entraîné yëpp bu ñëwee lim fi fekk lu saf saf la fiy fekk. moom yaa ko moom. maa ko moom te arène nationale tamit maa ko moom waaw fa ñu jëm maa ko moom fii maa moom loolu dafa leer. yaa ngi naa la Bawol booy dama yaakaar moo tax kon waruma def benn cuune waaw loolu nag surprise lay doon yow nag kontaan dem foofu incha allah Karbala jàppante ñoom ñaar léegi jënd nañu Diouldé 2 Karbala Diouldé 2 moo ñu wan ginnaaw Karbala la ñu jàkkaar lool ñoo ngay damantey baaraam cee xew fàq na ko Diouldé 2 Karbala jël na ko Diouldé da koo bëgg a añ door na Diouldé 2 Karbala mbaa du ko puusaat mu génn mbaa du ko puusaat mu génn fàtt na ko léegi mu ngi koy Diouldé 2 Kerbala ñu ngay bëre fàq ko da daan da daan jël daa mel na de Diouldé 2 Kerbala ku daan Kerbala daan na Diouldé 2 sant wér kay. naka a ñëwee. waaw tey ànd ak samay mbokk rek waa Gaaw bi ànd ak waa Morala waa Kër Masar yëpp Farba Dione ñëwul. te maa ko ñaanal li ko dal gaan yàlla te nag jaamu salaam. waaw dañu ñëw motal contrat bi rek. motal waaw waaw dañu motal contrat mu jéem ñu xool leneen. waaw tey lan ngay def da ngay xeex wala. non tey ka laay xeexal. <laughs> non soble da ngay yaasa yaasa. Ah, ci kanam. Ndiaye nuyu naa la. waaw fay ah, duggoon parcelle. génnaat parcelle duggaat parcelle lan duggoon ci Nokia. day génnaat parcelle. Ah. waaw avant tout ginnaaw ma sant yàlla di seen dugub di sant sama ñaari waajur di sant waa parcelle yëpp xam nga di ñaan sama doomu ndey Guèye Seras suñu borom defal ko ndam ak far bu jar di ñaan waa parcelle ñëpp ku si am combat suñu borom defal la ndam waaw. lan moo duggoon ci Nokia. waaw grand frère la parce que sama morom mënu ma leen jeexal su bëre huit combat xam nga say morom bëre nga say morom eh doy na quoi grand dañ ma war a may sant ren morom ma jël ko te grand bëre bu baax la xam nga bu su mel ne gars rek maanaam dañ ko soxla si làmb ñun booy yi. xam nga gisoon sa combat yi paas est ce que ko gis si bi xeex bu métti bëre bu métti est ce que mën mooy raw bii mooy raw bu dëgëree boppam dinaa ko neexal ak jëm ne ko ko si. nee na bee paase daa juumoon te day xaañu rek du def dara maa def lépp maay xale maa def lépp nga taxaw déglu ma rek xool naa naa maa ngi leen condensé waaw. waaw waaw riz de mbal gi am na solo lool. mais naka ngeen andee juróom si la. waaw su amuñu benn pression nag parce que yàlla rek a ñu def si mbir yi. tonnerre yi taxaw na de. waaw vraiment indi ay miskin yu sëree yu baax mais nag juróom xam nañ ni ñu koy liggéey loolu lan la quoi vraiment liggéey na te ku nangu coono la nag jàmbaar la wax dëgg fa yàlla yàlla rek a ci des mais billahi lim ñu nangu am na mbëri bëri yoo xam ko nangu mais ku ñeme coono la boo koy fitnaal tamit du tax mu bàyyi mukk ku ñeme coono. la war a bëree foo war a xeex wala dafa war a bëri. la waxtaanee ne waxtaanu biir la Tonnerre nag nee day ñëw mottali contrat rek dem. waaw yal na ko yàlla defal jàmm rek mais xeeb nga xal mu lakk sa kër xal xeeb nga mu lakk sa kër. kon non tey naka ngeen andee Giro. waaw Giro andi nañ ko ci fulla fayda rek Giro suñu doomu ndaay la entraîné na dañ na ay coono yu métti Tonnerre Tonnerre maa ngi koy wax lu leer barki sëñ Touba rek di xeeb xal mu lakk sa daay kii Giro Seras Baye Fall bi te incha allah rabi dinañ am ndam ci kàttanu kaay. bilaay damaa liw di jaayee. damaa liw damaa liw di jaayee. damaa liw doon lan moo ci dem. waaye saa yu dem ci géej gu bëri rek ñaan yàlla daan trop pour deux ñu yëmbal ànd ak samay rek ak samay xarit. kon nag nee na moo fi doon day ñëw moo tëj contrat am loolu kese moo fi andi. mbaru dëkk laa su ma jógee baraag yëmbal kër ma nekk ñëpp ay génn ànd ak samay rek ñoom Baye Sall ñoom Thiot ñoom Bouba xam nga vraiment ñu mënu si mënu am solo tey moom ba tey moom tax ma bëgg a bëri bëri bu caay te si kàttan yàlla naa ko daan tey jëlum sa nit bi du lox ba est ce que na ci yow non ma damaa yëngu rek comme ça dama sotti li ma taxaw benn place lii rek mais su ma nee bëri rek damay tàng waaw combat bi tey xeex la laaj wala bëri non moom xeex la moom pour bëri moom faaw xeex ak moom ndax donte poids lourd la pour mën a xeex ak pour moom xeex a bañ xeex xeex bëgg a xeex xeex bañ xeex xeex ah. waaw ñaan waaw day añu ma barki yàlla. bu tax añu loo. tey sama doomu ndey ma bëri vraiment sonn. mais nag tonnerre mais ma gis ah, loolu dara. loolu dara kii la moom yaakaar boo ko dajee. daj fee daa yër de. Paar mooy kii mooy xëy na ci ngor yi téye ndox mi. waaw. mais yow da wala nu mu demee noonu. daan loolu la gars yi laaj nag. mais nag dégg naa. da ngay daw avance di teggi teggi bu métti. ah di teggi mbër yi. Ousseyn man ma teggi mbër Ousseyn man samay morom. billaay walaay ñoo may wër ba ñu maa ponkal ponkal sax lañ may daw waxutuma laa ñu man Ousseyn maa gën a a bëre ñëpp. mais ñan ñooy say morom. mais xooloo morom yi ba booy Dakar ak bi xam nga ay yeneen daa jël booy ay booy say mbër yi ñoo war a ñëw ñu bëree. yow kay yow kay da nga woo wax Assane Ndiaye ko booy say ci combat pare naa boo sooy doo ñaari laa oteeku mu dem jël seen support jamono man ñaari grand combat laa bëri yëpp dama woo daan de kon xam nga am lu gars yi teggi nañ ñëw ñu bëre man damaa war a bëre ma bokk ci làmb billaahi wallaahi moo ma ñor la demee. nuyu naa. sëñ Naar Ousseh. tey naka ngeen andee Giro. waaw si xel eh, bu dee lu bari na yar bu teg ah lii nag mooy loolu. li gars yi koy bun lañ ko jëlee bun bun waaye làmb ji rek bu ma yóbbaale bu ah tonnerre ma gis taxaw na de. ñun tam pare si bépp côté wane na Serigne Touba ma si bépp côté si bëre beeg lépp xeex beeg lépp pare nañ incha allah lan la ñuy xaar rek yàggatu lan mu ñëw incha allah. yàlla may wootee lan xeex la andi wala bëre. bëre door la ñuy wax bëre door ñaar yëpp la ñuy andi bëre door la dañuy andi bëre dañuy la ñuy wax ñaar yëpp lu mu ñëw fekk ko fi incha allah lu mu ñëw fekk ko fi te incha allah si kàddu yàlla yàlla ñu may ndam incha allah. si kàddu baax na léegi nag ñu présenté nga ñëw fii ci làmb ji nga remplir sa contrat nga ñëw ba bi. sa adversaire ñëw naka nga ko bon sama adversaire man xaw ma lu dal de mais lii yéen a xaw ma lu dal quoi mais yéen a mu ko quoi. bilaay su mu ñëw bu ñu reyante parce que loolu laa gën a loolu moo tax ma jóg tey ànd ak samay mbokk yëpp pour moom. ki nga xamante ni mooy Guiro Séras bu ñu jógee ci rek ndogalu yàlla moom ah kenn mënu si dara dañuy nangu ndogal li rek moom xëy na li ko téye xam nga mënoon na ne dal sama kaw mais yàlla si moom la ko féetee kon dañ koy nangu quoi ndogalu yàlla la mais moom li ñu bëggoon ko nii dañoo bëggoon mu ñëw ñu jëflante. waaw. non damay xool ñeneen du ma ko xaar. sa naa ko jeex na maa ngi xool ñeneen grand combat bi laa soxla. Kilo Seras ak Do ku daan bëgg naa ku waaw. waaw Ousseynou ñu lay lu bëree bëri. jaafër.

You might know the one. yow 12 ans 12 ans 12 ans mooy sama barki Islam liggéey bi si kanam daam daam xoolal xale yi mooy sa kanam xale yi xale yi xale yi xale yi xale yi waaw moom ma dem ñu ko war. xale la muy jéegaante. waaw moom ma dem ñu ko war. ba ñu ñu bëre ba ñu am ñu ñu am. loolu ak dara. am naa yoon dara. dara bu bëree. ma nga doon bëgg. waaw. baax. bu baax a baax 15 ans de Ndiaye production lan moo leen inspiré ba ngeen andi combat yi ngeen ci taxawal pour def présentation ba pare andi Thiat Seck di surprise. a ah, loolu loo boo gisee liggéeyu Ndiaye production la ay jeunes lañ te ay xale yoo xamante ni gëm-gëm bi ñu am mooy liggéey moo tax ñu jël combat espoir yi ndax ñun lu ñu rek espoir yi ñoo ko may fu ñu toll ci làmb espoir yi ñoo tax ñu toll fa kon yaakaar naa ñooñu bés bu ñuy def 15 ans bu neexee yàlla bu ñuy def vingt ans espoir la ñuy dëgg bu ñuy def trente ans espoir la ñuy dëgg ndax espoir tey lu ñu doon ñooñu ko def kon ñoom la ñuy delloo jugal moo tax ñu andi kilo séerase ak nga xamante ne nii mooy dooleel loolu. lan moo tax combat yi ngay tëgg boo koy tëgg amateur yi ñenn ñi dina nangu ñenn ñi du nangu mais bu ñëwee rek mu nekk événement lan moo waral loolu. xam nga tey ñun dañoo yàgg ci làmb day amateur. dëgg mbapat rampe jaar fu ne du ñu jël ñaari mbër boole leen dañuy fekk ñaari mbër bëre ñu xam ku ci ne li nga mane ñu door leen a boole te yaakaar naa feeñ tey gis nga fi ñaari combat yoo xam ne jombal na amateur yi te loolu rek wut te la ñu bëgg. le 24 juillet mooy daj tëpp gi dëggan nga fi Ada Fass ak ak combat yi ci am sénégalais yëpp xam nañ mais combat yi nga andiwaat Ndiaye est-ce que pizza bi nga ci def di ko ci a am arène nationale la 24. waaw amoo daan de la 24 juillet li ñu présenté li ñu ñëw boobu doole ndax gala la ñuy def te incha allahu rabi dañoo war a tëj suñu saison te yaakaar naa bu ñu tëj saison bi rek war nañu mën a jël innovation yu am solo le 24 bu pare ñii la lan moo tax xale yi ngay faral di tëgg rek ñoom ngay rempli waat ci journée yi sa diggante ak ñoom. waa ngor la rek ndax dañ maa ji ngor ji ma teraanga su ma leen tëggee gis satisfaction ci ñoom satisfaction ma gis ñoom nag moo tax toujours rek ñoom laay biisaat te vraiment gis naa ci ñoom ndam gis naa ci ñoom loo xam te ni dañoo bëgg comme ni ñu leen bëggee noonu la ñu xale yi bëggee. le 24 bii tey mën nañoo xaar mu dugg le 24 juillet. incha allahu bari na mbëri bi dugg 24 juillet incha sant leen ñoom ñëpp gërëm leen ñoom ñëpp amuñu seen fay dégg nañ ci ñoom kontaan ñoom sant nañ bu baax a baax a baax jërëjëf maa ngi fi ak ki nga xamante ne bu Dieng ko xam-xam ko ci Dieng ku ko xam-xam ko ci Mbagnick ah jàpp ci affaire bu baax a baax El Hadj nuyu naa. maa ngi lay ziar Ousin sa cameraman di di nuyu amateur yëpp ak waa Wassare ana Dieng. Dieng mu ngi fi mu ngi fi comme moom dañuy ruux. combat boobu ba léegi ñoo ngi koy wax mais kenn kenn kenn Diène day laqatu dafa neme naka nga jël avance wala nu mu demee. non Diène moom ku xam xam ne professionnel la ko moom bu bëree ba pare dem na si ay entraînement am quoi nekk fi di sit di topp ay plateau ay télé day dem entraîné waaw. loolu la quoi. moo kan la ñu wax. non bëri na bëri na ay tappel lañu ay tappel dafa def ay preuve am. Moussa Ndoye tappel la Moussa Ndoye tappel la. guy gi tapet la. tapet bu mag la. kon nga teg loolu. pour lan pour lan mu ne pare na pour bëree bu ñu ko seetee muy laaj loo xam ne nii kenn du ko fay. lan ngay wax ci lim. dëgg la kañ. loolu daay tapet nga la ma wax lu. guy gi tapet. guy gi Moussa Ndo yi ñu ay ragal lañ. ay tapet yow foo nii rek. yoo xam nga fu ma toll. dañ koy wax. waaw loolu laa la war a bëreel. ñun ñooy ay adversaire am. dina dina ci ngor ci jom ci fula ak leneen am nit yónnee ko ko ñu ko dugal ci lien bi amoon ay ca jar na ko ndax bu doon dara jar sek Tonnerre 2 Guiro Seras journée Assad journée Fallou Ndiaye Djidane Ndiaye production Guiro Seras may ñu tuuti waa Thiat li nga way neex na jërëjëf yal baa ngi wax ak ñaari mbër yi Tonnerre de Guiro Seras ñoom ñaar ngi ci diggi géew bi arbitre baa ngi wax ak ñoom jox ko loxo waaw arbitre baa ngi laaj ay jugeem Guiro am na lu mu ñaan tofle ko ci kanam gi Guiro Seras Tonnerre 2 wala boog Tonnerre Guiro moo ngeem moo ngeem lu bële moo nu woon ginnaaw Tonnerre la nu jàkkaar lool Tonnerre ngeem moo ngeem lu bees li takk moo say ci bopp bi munu cee ñàkk Tonnerre lee mën a dox ci kaw Gros Gros Seras Tonnerre Tonnerre wàcc na Tonnerre Giro Seras Giro Seras Tonnerre Giro Tonnerre mépp na léegi Giro ngay xool Giro Seras Tonnerre ñu ngay lewaatoo Giro écurie dóor dóoraat Tonnerre Colobane mbooloo Tonnerre Guiro Seras ceeji lamb journée Fallou Ndiaye njiital Ndiaye production dimanche 29 mai les 20 heures 13 combat dafa am ci lu mu jóge Guiro Seras am mu def Tonnerre làmb ji mën na ko delloo ci biir làmb Tonnerre bëre njiin bu yoof Tonnerre bëre naag Youssou Ndour loolu rek doy waaye Guiro Seras mbokk yi bëre naa Boy Dakar bëre naa Nokia loolu rek doy na waaye mbokk yi loolu doyul Fallou Ndiaye andil ñu ki nga xamante nii moo dox ci diggante Tonnerre ak Giro Seras ndax booy xool kii di Tonnerre duggoon na parcelle daan fa ki nga xamante ni mooy booy Diop du école de lutte Père Birahim Ndiaye dugg ba rajoon daan fa ki nga xamante ni mooy Nokia ñoom ñaar làmb boole ne waaye ñu ngay lewaatoo calcul bi bari na waaye mënu cee ñàkk Tonnerre méb na waaye demul. Tonnerre mépp na waaye demul ah, calcul bi mënu cee ñàkk Guiro teg na pied gauche Tonnerre teg pied droite Guiro cokkaas na léegi Guiro cokkaas na léegi abit bi atana waat leen ci diggi géew arbitre baa ngi wax ak ñoom nee leen lewaatoo bi dafa yàgg kon bëre leen arbitre bi su lewaat na Guiro Seras Tonnerre demee nanu wet waaye saako yi fekkiwul kenn Guiro Seras Tonnerre ñoo ngi lewaatoo congo amagul dooranteegunu jàppanteegunu Guiro Seras Tonnerre wala boog Tonnerre de bu Colobane mbooloo Guiro Seras moo nga woowee parcelle dóor dóoraat ca Zos dañuy xeex wala dañuy bëre léegi mu leer Guiro cokkaas na léegi Guiro Seras Tonnerre Guiro Guiro cokaas na léegi Guiro Séance Tonnerre Guiro dafa bëgg a xeex wala dafa bëgg a bëre suuf si Guiro am na benn avertissement ku ci nekk am na benn avertissement lamb ji mënut a yomb arbitre leen yàgg yàgg danañu laale. ñoo ngay demee wet. Guiro Seras Tonnerre. Tonnerre tey dafa mel ni dafa déglu conseil. Grosseur As Tonnerre jàppante nañu loxo bam neex bàyyiwaat <laughs> ku ci nekk yaa ngi peese sa morom du xool lan moo ne ci moom bàyyi leen nu bëre. Grosseur As Tonnerre juróom même na léegi cokkaas na léegi Grosseur door na ko juróom door na ko. Giro Seras Tonnerre Giro door na ko léegi waaye Tonnerre rek ne tekk rek Tonnerre dañu koo yab Tonnerre tey juum war ko waaye Giro da koo bëgg a jumloo est que dina ko nangoom déet Giro Seras Tonnerre doxaat na ko door na ko ñu ngi xeex deux séances tonnerre dañuy xeex di bëree <laughs> waaw dama bëgg lii su jàmm xëyul bu mu fa gont doo door la woon waaye fayoo ko tas Guiro Seras Guiro Seras Guiro Seras Tonnerre Guiro Seras Tonnerre xeex bi enjeu wu ko Guiro Seras Tonnerre dégg xeex Guiro Seras Tonnerre Guiro Seras Guiro daa mel ni ni muy bëree na arrangé na ko Guiro Seras Tonnerre Guiro Seras

lan laay gis nii Guiro Seras Tonnerre balancement de bras Guiro Seras Tonnerre Tonnerre da koo bëgg a jàpp Tonnerre da ko bëgg jàpp Tonnerre jàpp na Tonnerre jàpp na Guiro jàpp na lan mooy xew Guiro Seras Tonnerre Tonnerre xeex bi arrangé ko daw na jàpp da ko bëgg a zongale Guiro jàpp nañu Guiro Seras Tonnerre Guiro jàpp na da ko bëgg a zongale dana ko génnam déet Guiro Seras koy daan waaw waaw Giro daan na Tonnerre lay lay la la Giro séance daan na Tonnerre takk na ko bokkoo xaata bi Giro daan na ko Giro séance daan na Tonnerre